fa Macky Sall dafa corona virage l'observateur moo ko bind dàng ci xëtamu njëkk ni mu doxalee ci mesures yi mu tegoon ngir xeex coronavirus bi ak kàdduy démbam yi ci message à la nation bi bi muy xamle ay woyofal yu mu indi ci état d'urgence beeg dogal yi mu ko boole loon ndaxoon coronavirus bi woro yooyee la suna l'observateur xëy di jàngat yéenekaay bi xëy jël wax ji jal ko séq ko juróom-ñetti kàngam maanaam expert ñu di ko tong-tong Pierre Ahmed Badib expert ci wàllu intelligence stratégique ne waa l'observateur Macky Sall pression économique ak sociale mu yan amul moo tax mu yennee ko ko professeur Massamba Diouf fa dib enseignant chercheur ca faculté médecine yu ci biir yéenekaay bi li mu xam ba xam ko daal moo de ci hôpital yuy fees bay tuuru ca la jëm beneen expert di Jean Charles Biagui dib jàngalekat buy xeltoo ko gëstu jëme ci wàllu politique ne moom waxi président Macky ji woon démb seetlu na ci ay contradiction ak i incohérence yu dul jeex maanaam wax yu worook wax yu wérul enquête dinakaay nañu li wér te wóor daal te président Macky Sall moo di nañu fexe nu ñu dëkkaale ak bi te a wax ne ne jàngoro coronavirus bi jógeegul ci réew mi moo ngi fi ba weeru jàpp septembre bu weesoo loolee la mi ngi ñuy xamal ne Macky Sall def na woyefal ci misir yi àndoon ak état d'urgence bi mu teg ci réew mi li ko nañu woyefal yi mu andi bokk na ci marché yi ñu tëjoon dañu leen di tijji barabu jaamukaay yàlla yi ñu tëjoon dañu leen di tijji couvre-feu bi daan tàmbali daan jeex six heures du matin soppi nañu waxtu wa léegi vingt une réew te coronavirus bi faat leen ñu bëggoon leen a indi fii ci réew mi ngir denc leen fi ñu leen ko doon bañal loolee nangul nañ leen ko léegi ko amati mbokk mu faatu bitim réew ndax coronavirus bi bu say mbokk bëggee mën nañ la ko indil ci réew mi dencal la ko fi lise ko gis ne ab administration mbooleem lu mu tegoon rek moom Macky Sall teggi na ko soleil national moom ni mu ko jàppe moo di ay misir yu taroon président Macky Sall indi ci journal Le Témoin nañu xeeti xupp yooyee moo waral général Macky Sall teggi tànkam état bi moom it reculé Vox Populi bind ne bombu coronavirus bu kalaatee ci réew mi nañu xam ne Macky Sall moo ko jox na coronavirus bi autorisation ngir mu circuler ba noppi wax ne covid fi jóge gu fi léegi ñook moom ba weeru août jàpp septembre lu soxal jumaa yeeg jàkk yi ñu tijji ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi xam ne ci biir journal Sud Quotidien yi du weesu fukki nit ak ñaar ak imam bi ndax duñu nangu nit ñi di songandoo jàkkee juma yi di fa dajaloo ak di fa bari ama kodd Diouf ne waa Sud Quotidien dogal bi jëm ci ubbi waat jàkkee ak juma yi ku dégg bi di docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye directeur général de la santé yéenekaay yu bari ñu xëyandool xamal nañu ne démbo tàng jër ak wex xàtt la boole la yéenekaay nañu bi muy def bilan bés bi jëm ci coronavirus gi ci yor yor gi dafa aalu woon dëgg ne jëm gi di artemisia covid 19 ba tax am ñuy dugg ci kër yi di ko defal ñenn ñi ba ci ŋàññ gi ñenn ñi di ŋàññi doxalinu ministère de la santé ci ni muy xeexe coronavirus bi lu ci nekk docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye wax na ci ba xam ne sax ne waruñoo nangu ak li ñu tabax lu nekk ñu daj ko ci dem ba yegg fii bëgg ko yàq vox populi nañu xemes démb comme xeme dem na sax bay ñaawlu bàyyileko gi ñenn ci askan wi tàmbale bàyyileko ci fàggoog fagaru gi ñu nekke woon ngir xeex coronavirus bi a sonn coronavirus bi ña ca des bu ñu demee ci kër yi di defar ay prélèvement ñi corona seen bakkan ci xott lay nekk ndax dañu leen di menacer ak di leen tëkku